ña jébbaloon yàlla ak yonen ba seeni bakkan ak seeni jur raw nañu ñàkk ak lu dee si ragal ña jébbaloon yàlla ak yonen ba seeni bakkan ak seeni jur raw nañu ñàkk ak lu dee si ragal ñoo def lu wérul lu rafet ñoo am lu wér lu rafet ñoo nangu nangu na wet ñoo war saxaari ndigal njëbal gu wér rekk wér moo am njariñ ku ko def raw lépp loo bañ te jot loo bëgg jag te jagal ñi lee ngi bafungu ñi lee ngi waaxu ñi wari fas murit ya faf dugg gaalu cant benn fëxal ñi lee ngi rootaani ñee ngi jaj ñee di asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñuy topp ci biir mi ak ci bitim réew noo ngi leen di nuyu te di leen ziar bu baax a baax gannaaw bu ñu nuyoo ziar Cheikh Mouhamadul di ñaan sunu borom mu dolli ko fi yàgg ak wér eh, di ko ñaanal baax ci bis bu màgg bu tedd bi tey eh, muy bisu tam xarit di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu yàggal fi Cheikh Mouhamadul Muntaxa te doli ko wér ba lépp lu naalal cheikhul xadim mu yeggale ko ba sumb yeneen i naal waaye di ko ñaanal baax jàmbaaram gi di sa ñam di faal sëñ Mbenda tey ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina yàlla na yàlla dolli ko yàgg ak wér bu baax a baax. Eh, te di leen ziar di ziar nag euh, mbokki tubaa France fii ci Paris xam ngeen ne eh, jamono yëpp noo ngi fi lépp ngir yaatal liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall euh, Baye Mouridina tey nag ñu ñëw ci kër goo xamante ne bii mën nañoo wax ne sax kër Serigne Amdi Khady Fall. Ah, ndax euh, murid bi nga xam ne moom lañ fekk si muy sëñ Mouhamed Ben Diop di jàmbaar lool di ku bëgg Serigne Touba di ku bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di Baye Fall. di boroom xam-xam nag di kilifa fii ci réew mi euh, ñu fekk si ko nag tey jii euh, fii ci daara ji nga xam ni daaray Kawsara la ndax boo duggsee rek Kawsara moo lay njëkk a joxañ xamal ne fii moom kër Cheikh Seif Asana di ko jaajëfal bu baax a baax di jàmbaar di Baye Fall waaye di ziar bu baax a baax Cheikh Ahmadou Bamba Thioune mi nga xam ne euh, jànkatu xasida la waaye tamit di jàmbaar lool di defaru Cheikh Mouhamadou Moutada ndax yaakaar naa ci loxoom la nekkoon mm-hmm. ñu fekk leen fii ci France nag ànd ak Serigne Aliou Badara Ndim fas yéene seq ak ñoom waxtaan Euh, waxtaan woo xam ne lépp nag day dugg ci pas-pas euh, mel na ni sax ñoom am nañ euh, ndeysaan xalaat yu yaatu ci ci ci ci àddina bi du man a sax Sénégal rek waaye dama naan ci àddina bi yëpp ngir yaatal wala joxoñ bi nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall joxoñoon na ko waxoon ne ndaw ku ko waajul moo war a waajal boppam mm-hmm. waaye waxoon lu bare bare itam ci ni nga xamante ni noonu la nit ki war a dunde dëgg-dëgg mm-hmm. ngir mën a téye lim yor waaye tamit ngir mën a tamit teg tànkam ci loo xamante ne bi nit ku ko gis da koy bu baax ngir xam ne lépp rek euh, mën naa dox na dox jooju ñu faral di wax saa su nekk. Mhm. loolu mooy seen gis-gis. loolu lépp nag junj la mais dañ leen di bàyyi ñoom ci seen jëm yu bopp ñu yaatal waaye leeral ñu sëñ Mouhamadou Ben Diop asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Mamour Ndao ñu ngi lay siyaar. Mhm. di siyaar euh, sëñ siyaar mhm. euh, mbokku taalibe yëpp di mbokk jullit yëpp. Euh, rawatina waa Lamp Fall ak euh, kuréel jas bu Murit yëpp rek mm-hmm. di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi mm-hmm. suñu suñu suñu yaakaar tey ak ëllëg mm-hmm. di Sëriñ Tuubaa ci kaw suuf moom du Mamadou Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér noonu lañ koy ñaanalee suñ Cheikh euh, am di men Moodu menn nga xam ne moo fi toog jotaayu maam Cheikh Rahane Fall doon Cheikh Ibra bu mat sëkk di di siyaar tamit sama buntu ko Cheikh Ibra mhm. eh, sëñ Amdi Xadi moom Cheikh Serif di ko ñaanal Fall mu yàgg fi lool ànd ak ak njabootu waa kër sëñ Asan yëpp rek mhm. ak sëñ Baye Baye Sàkk nga xam ne moom wax dëgg Yàlla moom <laughs> sama diggante ak ñëpp xam nañ ko ci Kawsara wax dëgg Yàlla moom it ñu ngi ñu ngi koy siyaar bu wér a wér a wér mhm. te di am mbégte ci jotaay bi nga xam ne daanaka ñu ngi koy seq te ni ngi ko waxee surtout fii kër kër Cheikh Ibra la waaw kon nag dañu leen di dalal xam ne ne ne seen kër ngeen ñëw wax dëgg fi yàlla moom ñu ngi ci am mbégte lool lool lool lool wax dëgg fi yàlla di delluwaat kàddu gi rek jërëjëf di la jaajëfal bu baax a baax Cheikh Amadou Bamba Thioum ñu ngi lay jaajëfal te di la ziar bu baax a baax di wax nga nuyoo ak mbokk yi jàkkaarloo ak noonu waaw salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Mamoun Ndaw ñu ngi lay ziar ci kaddu yu rafet yi ci kaddu yu teey yi yu am solo ndax nit boo ko nuyoo rek nuyoo bi nga koy jëkku nii dañuy xam ni ndax euh, ku baax nga wala ku ñu yar nga wala ku ku ku ku ñu war a déglu nga waaye macha allah ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm bu baax euh, di ziar sëñ Alioune Badara moom it di ko taataagal ci teew bi ngeen di teew ndax lii dafa am solo jóg bi ngeen di jóg di liggéeyal sëñ Tuubaa ak Seex Ibra mhm. ñëpp ngeen ko defal mhm. waaye nag yal na ko Seex Ibra gis mhm. ak sëriñ bi ñu ñëw fii teewal fii aussi suñu suñu jëmm ngir jëmmi sëñ Tuubaa di nuyu suñu président bi di sëñ Mouhamed Ben Diop dama naan ko li tax sa tur bi dafa xaw a doy waat ndax yonent bi mu ko bëgg rek war na laa mën a bëgg ndax tur bi lu ñu seet nag lan moo nekk ci wala ci biti waaye yonent bi moom mooy yonent ñëpp la di ziar sëñ Mountakha di ko ñaan suñu borom guddal fanam. Mhm. wéral ko te te te te musal ko ci cat. Mhm. noonu nee na leen ñaanal suñu suñu bunt ci Serigne Touba muy Serigne Mamour Mbacke mu Cheikh Mourtada. Mhm. suñu boroom may ko gudd fan ba li mu naanal maamam suñu borom defal ko ko. noonu la ñu ñaanal suñu Modou Mbène Fall nga xam ni mooy xalif Baye Fall suñu borom yàggal ko fi. ñu ngi ziarat wax dëgg yàlla suñu Cheikh Khalifa yi. ñoom it ñu ngi koy ziar bu baax. Eh, li nga xam ne nag mooy nuyoo bi duñ ci sori. waye la tax ñu tew fi inshallah allahu xëy du ñatt ñu dugg ci ba ci biir ñi ngi leen di ziar bu baax jërë ngeen jëf tay rek jotaay bi damay eh, ziar bu baax eh, sëñ Mbaye Baye Fall ak Baye Serigne Ngom ndax dañu bëgg waxtaan pass pass waye bo tuddé pass pass rek sa xel dem ci jëmm yoy nga xam pass pas-pas moom seenu seenu jotaay ya ah, tay dafa ko dañ leen koy abbu tay <laughs> su ko defee dalal ci ñaari mbokki taalibe yi mm-hmm. di jaajeufal baax señ Cheikh Fall khadige yi ci njambaram ak pass passam mm-hmm. liggéey bi mi liggéey fi ci France loolu defe na ñëpp xam nañ ko waaye saxaar moom bu jógee gaar day eh, xanaa du ñàkk ay baytu xasida yoo ñu yëkkatal balaa ñuy dikk ci nag eh, suñu kilifa gu baax bi nabi wa rasul nicma laasi jaada bisuul lana birabihi jamil min zikrihi wa laqami آيات تاه أحمد لا تتناها سرمدا ونتقوى ذوي الهدى عن خطه بالقلم أسلاه لاه إلى كل وارى مرتلا ذكرا عليه أنسيلا هدى لذي تعلومي أكرم بذلك الكتاب فيه هدى هو سوى فيه خيتا هو الجواب من ربنا زن خدامي هو سيفا من كل داء لما عليه اعتمدا ومن أبى هتريدا ذا حسرة وندام وكل شخص حاد فيه ولم يجتهد بتوبة لا قرادا من ربه المنتقيم وهو الذي من اهتدى بيديه نال هدى ويحتوي الفزغاد ذا عصمة من إقام وهو كتابه المبين جاء به ندب الأمين بإسن راب العالمين هدى بالأقوام وهو الذي من أدبر عنه وما تدبر في عسى رب الورى duxuukatan lu wami barki borom Tuubaa macha allah Cheikh Ahmadou Bamba day ubbi nga jotaay bi nag ñi ngi ñaan ci barkeb xasida gi nga jàng ci barkeb bis bii di tam xarit ci barkeb jës bu nga xam ne sa waaja Cheikh Serif Assane waaw dëgg naa daana ci wax lu yu bare bare bare bare ndax fi nga ko jànge tey mhm. jës bu moom kéemaan la <laughs> sama xel dem na ci bàyyi mu di jës bu ca mag nga barkal la ñu ngi ñaan sans borom defar lépp nag waaye lépp rek euh, jiital suñu ñaari kilifa yi muy Cheikh Mahamadou Mountakha ak sëñam bi moom sëñ Mour Fall Mbenda kii di mhm. sëñ Touba kii di Cheikh Ibra Fall mhm. nañ fi yàgg lool ci barkeb bis bi barkeb xasida gi euh, président ñu lay ziar bu baax jërëjëf jërëjëf euh, xam naa nag fi ñu bëggoon tey tàbbee ak yow. ci mhm. tàmbali. Mhm. waxtaan wi. Mhm. mooy kilifa nga fii ci réew mi. Euh, ba pare itam euh, di borom pas-pas te ñépp xam la. Euh, fi nga yow nag li gën a yéeme sax mooy fi nga jaar Cheikh Ibra. <laughs> foofa nag day kër goo xam ne ñëpp xam nañ yoon wépp xam nañ. liñ doon ci maam Cheikh Ibrahima ak pas-pas beeg njàmbaar gi la ci ñoom. sa digganteeg Cheikh Ibra rek dañuy njëkke ba noppi. Eh. man waaw. ndax waaw ndax ndax euh, loo gis lu ne dafa am sabab. Mhm. tey ñi la xamul. Mhm. Euh, tey melaw Baye Fall bi ngay dund. Mhm. buñ ko jeexee dëgg-dëgg danañ xam ne yow am na lu la ci boole. tarkal dañuy xam ne mbir mi cosaan la. ñàkkul ñun xam nañ. waaye àddinaa lay seetaan nag. te am na ñooñu dégg nañ la. wala gis nañ la nii rek waaye bëgg nañu bëgg nañ nga wax nu dëgg-dëgg. lan moo la boole Cheikh Ibra Fall. Euh, sëñ sëñ Mamour maa ngi lay eh, jaajëfawaatal bu baax a baax. Mm-hmm. ndax eh, laaj bi nga laaj dafa nekk loo xam ne. Mm-hmm. day uyoo baat bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy dàkkantalee jamono ji mm-hmm. muy pas-pas. ndax eh, boo tuddee sama maam Cheikh Ibra. maanaam daf may yóbbu fu sori. maanaam yóbbu fu sori boobu. li may faral di faral di wax nit ñi ne leen du muritu deux bu ñuy wax loolu boo xoolee année deux mille léegi. Mhm. daanaka lu ëpp ñaar fukki at dox na ci diggante bi. waaw. Euh, sama euh, mën naa ne damaa yàgg dund Baye Fall. Mhm. tey jii ci Gibraltar. Mhm. Euh, ñu leen di nuyu ñoom ñëpp di ziar waa daayira Inlaah maanaam bi xam ne ñoo fa ne. ak kuréelu Zikrullah bi nga xam ne moo fa ne. ba ñu fay njëkk taxawal daayira daayira Zikrullah. daanaka néewoon na ci. goxu ndakaaru mm-hmm. ñu fay wax waxu waxu Cheikh Ibra mm-hmm. rawatina ci quartier Gibraltar ndax dafa nekkoon loo xam ne dañ ko ni ñu koy waxee quartier résidentiel dañ ko mës a jàppee mm-hmm. maa ngi ciy jàppale sama sama beneen nijaay joo xam ne rakk lu ci sama sama waajur di ko ziaraale moom it te di ñaan yàlla fëgg bokk bi ndax jamono yaram bi daa xaw suttanti ñu koy wax Moustapha bu bu bu bu bu ay xeetu koritax tabaski daan jot mm-hmm. eh, jamono yi sa yeblaat nga xam ne mm-hmm. ñaar yooyu moo daan faral di am buñ ko buñ ci buñ ci daan julli ji dañ ci daan wér lool mm-hmm. <laughs> ndax eh, gox bi lu mu tuddee woon kër yi nga xam ne këru murit dañ ko daan wàññi waaw dañ ko daan wàññi ak sama yeneen nijaay yoo xam ne yàlla dafa dogal dama mës nekk ci famille boo xam ne dañuy dund murit sama waajur bu jigéen bàyyam ñu koy wax eh, Cheikh Ahmadou Bamba gi ba mu juddoo la fekkoon sëñ Bam sëriñ tubaa ñëwoon gane si maamam kon te la ba mu tuddee ko boppam kon dama judd ci murid sëñ Modou Kara mi ñuy wax ñi tey sama waajur yàgg na ko fóotal yéreem ci Gibraltar nga xam ne kon euh, lu lu yàgg la wante sama sama sama sama jaxasoox mun naa ne ak euh, sëriñ Touba ak Cheikh mu ngi mu ngi ci ci ci li nga xam ni maanaam ca laxasaay ba mu koy def. Mhm. mu ngi mu ngi jóge ci euh, jamono ji may jàng école. Mhm. xëy suba xuloo sama prof stage hmm? te li waral xuloo bi jamono jooju maa ngi laxasaayu nekk is li gën a yéeme. Mhm. di laxasaayu sol bàyyi laa tax yëpp. bu ñu fàttalikoo mooy góor bi nga xam ne sëñ sëriñ Saliou joxoon na ko sëñ sëñ Moustapha ci daara 14 ñu war ko gor te mu woo ci sëñ Amdi naa su ma juum 93 wala 94 lay doon bi muy biñ biñ ciy dem boobu fekk na maa ngi jànk def def maa ngi doon def terminal bi may dugg ci ci classe bi dama fekk prof bi di wax am lu muy wax ba tudd yoonu Baye Fall am lu mu ci wax ba mu ci waxee nag wax dëgg fi yàlla affaire yi ñi fa nekkoon xam nañ ne bu ma déggee ci wax ji damaa am lu ma lu ma ci doxee mm-hmm. ma am lu ma jëflanteex moom ci kàddu jóge fa gàddaay ñëw tombe ñuy woote boobu ñu koy def noonu laa fanaan jee xel ko mm-hmm. jamono jooj boo tàggoo dem xel kom dañ naan nit ki mu dafa deewi na ndax nu mu xel ko mettee mm-hmm. bi may njëkk wàcc xel ko Mhm. sëñ Abdou Sakor Fall nga xam ne maa ngi koy maa ngi koy siyaar moom it. Mhm. daanaka moo ma moo ma dalal. moom Cheikh Serif Assane moom Cheikh moo ma dalal. Mhm. bi mu ma dalalee maanaam ma laxasaay laa fa wàccee caaya ak xam nga laxasaayu usbu rek. bi mu ñëwee mun leen may leen ko ñaari fan. léegi mu léegi euh, colin gi soppeeku. te noonu la soppeeku. yàlla dogal ñu ñuy topp kóllëre googu. at bu ne. ndogu yi nga xam ne sëñ Amdi daan na ko yóbbul Serigne Saliou. Mhm. nga xam ne buñ ko ko andilee àjjuma dañ koy tegaat ci camion yi yóbbu ko xel ko. Mhm. Euh, man mii ci camion yi maanaam saa su ne bokk naa ci ndongo yi nga xam ne moom lañ daan tànn ngir ñu wër daara xel kom yëpp di ko séddale. boobu jébbalu ko. boobu man boo koy jébbalu naa moom koy xel kom ba ma yegsee balaa maa wax dara damaa njëkk a ba noppi. ah est ci bi. waaw ci ci Baye Sakk la jaar ngeen wane ni mu yéeme. damaa ñëw jébbalu ci seen bi Sakkoor. Mhm. ñu dox tuuti mu ne ma mun a ma mu a ma Mouhamed ma ne ko Fall mu ne ma lu ma am lu baax lu ne sëñ am di laa ko yónnee. sëñ Sakkoor. sëñ Sakkoor. na ma na ma na ma dama lay bool damay jël sa njëbbal ak sama bos yëpp ñu jëlaat joxaat ko sëñ am di. si si d'accord ak ay góor ne ma ne ma ne ma ne ma bi si tey doo dootum du ma sa sëriñ sa jëwriñ laa ci kër kër kër sa kër sa li ngay wax de mën nañ koo seede waaw kii fii ñetti fan daanaka def nañ ko moom te fii ñu fii ngeen mu fekk nii bi muy bi muy bi muy ñëwee France fii la wàcc ci kër gi def na fi ay fan bu fekk yaram bi xawoon tan ñooy mhm. ñu ngi ko xëy ñu ngi koy saam rom du ñu toog ay diir to déggantew ñu ndax moom mhm. donc mhm. lolo andi sama sama sama jokku bi bi keur sëñ di bi keur sëñ di waaw da nañ da nañ dikkaat tuuti euh, dama bëgg ñëw ci sëñ bàmba euh, euh, jërëjëf nañ dikkaat tuuti rek dama bëgg ñëw ci sëñ bamba bàmba euh sëñ bamba yow yaangi fi nga jaxasoo jëwrin président Mohamed Ben Diop miin ko lool tamit ngeen di jaxasoo ci yu bari mm-hmm. gis nga fi mu tàmbalee li ko booleeg Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne moom daanaka sëñ Sadio boo ko gindi moom xel koom rek la doon dem mm-hmm. daje faak Cheikh Ibra te bu jiitu loolu nag da doon dund ak Baye Fall parce que gis na ni mm-hmm. yoon wi comme ni ñu koy waxee rek ku bëgg a dem Cheikh Ibra ngay roy moo xam ci université yi moo xam ci yenn eh, écoles yi war a yu mel noonu fu ñu xëyee la sëñ sëñ Saliou waxoon nañ fa gontul Cheikh Ibra Fall mhm. suñ defee ay bisu kii bisu ngontum Cheikh Ibra mhm. buñ defee daayira bu ñuy tëj sikkar mhm. yooyu ñu yàgg dund ci école yi tax ñu bëri ñu xam ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall ba yàlla dogal ñu joxañ ko Xelkom mu dem Xelkom gis fa jàmbar ci ñam di xarit Fall jox ko ci moom yow bi nga ko xamee ci réew mi xay na leen mu def ak diir ñàkkul loolu mën a seede ndax yow eh, sëñ Mourtala mooy sa bunt Mhm. sëñ maam Mor tay moy sa lépp. Mhm. Euh, waaye melaw yi nga xam ci mom ci ak Baye Fall ba tax ngeen and liggéey bi loolu ñakul loon ci mëna dimbalé ci jëmum ju tedd waaw waaw jëf sëñ euh, mhm. sëñ Mamoun. euh mën mëna ci am sédé waaye yalla dafa dogal dañu yar ci jangal ñu teg ñu ci yoni sirata mustaqim duñu lambatu nak ndax jikko naar la ñu yor. Mhm. jikko naar mooy euh, dañuy làmb ba daj rek. Mhm. doog a téye. Mhm. waaye du ñu jékki-jékki ku nekk ñu kii ko ñu saafantoo yow déedéet. ndax ñun balaa ñuy saafante ak nit. dinañu ànd ak moom diir. di ko gis ci ay jataay. di ko gis di waxtaan ak moom. di jëflante moom. du tax ñu dugg ko nag. waaye bu ñu demee ba dugg ko rek. téye nañ ko. waaye nag ay valeur moo tax ñu téye ko. mom liñu ñu moy ci yalla ak yonent bi Serigne Touba. génn génn ko. yàlla doog ne man meuna sédé ci mom lo xamni musuma ko gis ci lo xamni neexul suñu borom. ndax fi ci France mako ko buma fi ma sànni ñew suñu Mamour lay andal mu Cheikh Mourtada. ngan ñu ñoo def fi ñetti fan jóge France jóge jóge Espagne jóge. Euh, Italie jóge fépp ba ba yegg si fii saa yu nu ma sànni ñëw dañ koy fekk ci ngan ki ñetti fan yi fi sëñ Mor ñëw yëpp day ñëw ci gis bi waaye nag loo ko xàmmee ak ni diplomate la wala am na leneen wala da koy gis lenn loo xam ni ci moom raxul lu dul taalibe mm-hmm. waxtu ñee day joxe addiyam te fa nit ñu toog lay toog maanaam du sax jéem a saafantoog sëriñ bi wan ko ni ko ñun lii nañu may wala lii nañu may wala li ñu am ndax xëy na jikko Baay Faal boobu kii euh, feeñ na foofu mm-hmm. boo gisee te ñii ñi ci biir day toog bu ñu ko nee jekk si sax dafa naan fii baax na kon loolu jikko taalibe la nga xam ni waxatuma laak nag fa mu fa mu fa mu bokk muy famille am mm-hmm. famille bi mooy li ma mën a waxee mooy kër sëñ euh, Moustapha Sabar moom mooy euh, ñi nga xam ne mooy waajuru soxna mm-hmm. kooku boo xamee euh, fii ci France kan mooy euh, sëñ Moustapha Savary di nga xam ni kan mooy sëñ Touba hmm. ndax na mu dunde ak moom man bu ma masaane ñoo ànd ak sëñ Mor hmm. dama koy fekk ci buntu kër gi hmm. su ma ñëwee mu ñëw ba ci man ni ma bamba ma ne ko naa mun may waaye sama jànkat daal di yëkkati xaalis bu bari jox ma ni ma bu kenn dégg ak di xasida la nga xam ni kon te amul lenn loo xam nampatal na ko ci njabootam lu may lu sëriñ tubaab bëgg na ci taxaw ba mu man kon bu jaxasoog ñoom ba ñëw yegg si fii ma ma di ko gis saa yu man bëggee dara ni ko ah Mohamed damaa bëgg dara de mu ne ma ah kon day bu fekkee bu ma kenn ci barke Serigne Touba mun ma noppi danaa ko faj nga xam ni kon lépp lu muy def ci Serigne Touba moo tax nga ko moo tax ma koy def mm-hmm. du ndomba du dara mm-hmm. waaye nag dama fekk ma koy gis ci ay jataay yoo xam ne jataayu Serigne Touba la muy ànd ak ñu baax di ànd ak ay gor nekk ci li mu war a nekk gisuma ko ci lu bon gisuma ko li ci lu ñaaw ndax tey ji bu fekkoon gisoon naa ko ci leneen du ñu ànd ndax man man xaw ma loolu waaye nag la tax nga laaj ma ko mooy dama ko gis ci lu baax ci yoonu siraatal mustaqim mu koy jëfee di ko wane ba tax na wax dëgg yàlla ma xam ni kii murit la kii ku bëgg sëñ Touba kii taalibe Cheikh Ibra la sëñ Touba la bëgg ma ni ci moom ànd ak waaw alhamdulilah jërëjëf euh, sëñ Ahmed Bamba Diouf danañ del si wax sax euh, sëñ Mohamed Ben Diouf dafa am rek lu ma bëggoon euh, loo xam ne yow danaa la ko mën a laaj mhm. donte ne question la sax boo xam ne yàgg nañ ma koo laaj mhm. ci kër gi nga bokk mhm. muy kër Cheikh Serif Assane sa buntu di si ñam di xadifaal waaye mën naa la koo delloowaat ndax yow xam miin nga kër gi te njaboot gi it miin nga leen nek nga Baye Fall. Mhm. di dund Cheikh Ibra. Mhm. te bëgg ko. Mhm. yamoo ci rek. na Baye fal laa moom rek ndax li nu booleeg yow ba tax jotay bi yam bëgg Cheikh Ibra bu ñu xam ci yow. ci ci ci at mi weesu wala ci fan yi at yi wessu ci ci ci ci ci wone go wone cofeel. ci Cheikh ibrahim Fall ci li ñuy def. Euh, tay ji li nga am ci diplôme. wala boog fi nga toll ci réew mi. di bëgg da nga ko da koo muur. ñëpp xam nañ loolu. ku la nga toog jëwriñ wax na ko léegi du mhm. xam ne sax yow mhm. ci parab sàngam nga ne wala nàngam ngay def mhm. kooku waxul du loolu nag man li ma gëm mooy sa waaja daja Tuubaa kañ bàyyi ci njariñ mu si ne moom daa ci boppam kenn du ko dégg ci dara te man ñëpp nag ak ay jàmbar gis nga kii toog nii sëñ Aline Badara Ndim ci Cheikh Ibrahima Fall mooy sëñ Cheikh koo gis mu teg ko bët ku ne lijjantil kooka mooy kan ndax ndax moom tu sëñ Cheikh daa daj ndax maam Cheikh Ibrahima li dund mhm. te xam ne li ko Cheikh Ibrahima defal mhm. ñëwul kenn ci dara mhm. te moo nu wax ñoom ñaar ne di xadi la teg ci kanamam ah, xalaas hmm? xalaas yaayam fal fatim xari nama jamonoy sëñ Mour musa Fall ba ci sëñ sëñ Mortala ba ci sëñ Ablaye Fall ndar mu ne ma ndog yi jamonoy sëñ Ablaye ba ci sëñ ñu ko daa togg ca kees ga ca la bokk mu naa lu la mën a wax di yokku te samaam Cheikh nee na ku yokkul yaa wàññi. Mhm. Mhm. Eh, eh, léegi nag maanaam sëñam di moom xam naa ne yow. Mhm. xam naa ne. xam nga am na foo ko teg. ba pare am na looy royee ci moom. lan nga ñu mën a baaxee ci dund ngay dund Cheikh Ibra Fall. ci sa diggante si ñoom di xel yi. ndax bi ngay jébbalu ci moom. xam nga làmbatuwoo. dëgg la da xam li nga joxe sa bopp fi nga joxe sa bopp mooy fan. te boobaak léegi. jëf yi takku na loolu jëf yi. ci digganteem ak Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. ñëpp itam la yéem nag. du mën a Sénégal du mën a bitim réew àdduna bépp. Mhm. léegi rek maa ngi jokkoo koo xam ne fi ma ko xamee ci réew mi xam lu tax ma xam ko. Mhm. daf fekk ci benn saal at yi weesu. muy waxtaan ne Cheikh Ibrahima xaw ma lu ko yabal ci moom. xaw ma ko de. waaye nee nag ci li ma wax ci li ma mën a jàpp. mooy nee da doon topp paas bi. gis na ñu ngi barab sangam ci saal sal benn saal mhm. mu jël mu jël kii bi numéro saal bi adresse bi waaye bi mu dikkee ma nuyoo mhm. bu dul woon ak loolu mu wax dama naan jinnee wax ak man wala keneen ndax daf maa nuyu rek na maa ngi tuub de xam naa xamoo ma mhm. waaye enveloppe bi joxal ma ko kii togg ndox yi kaw sare yi at moomu signal yi badara ñoo ànd ci waxtaan woowee ñu doon def boobu mi ngi toog ba ñu demee ñoo ànd ba dem ci sëñ di xarit guddi gi ba sëñ bi lañ ko nuyoo xaw ma xaw ma ñu ne ca amuloo ba waaye bis boobu noonu lañ ko jox sëñ bi ci guddi gi. Mhm. kooku ba léegi nii foofu la ñu pour wax la rek na la. Mhm. am seen ruq sax. Mhm. xamuñu xëy na lu bari ci yoon wi man naa am de waaye xam nañ sa jëm di moom. ndax nit ñi nag jëfa leen di dundal. te xam nañ sa jëm di fi mu nekk si nawet léegi nag loola lañ bëgg rek benn seede boo ñu ci defal bu kat. te gannaaw bi nga joxee sa bopp ba pare. di ànd ak sa liggéey bi yow ñàkk ñu mën a seede ci moom. alhamdulilah ci ci loo mën a teg sa bopp waaw euh, sëñ Mamour loolu boo ci waxee dañuy nekk loo xam ne ne lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu sawar wax la mm-hmm. ndax euh, mag daan na wax ne ma picc ngay naaw du ndam mm-hmm. ndax picc naaw lañ ko xamee mm-hmm. li ngay laaj ci sañ sa seede gi ngay laaj ci sañ euh, sañam di da ko wax ci wax ci muy maanaam baat bi nga xam ne nee naa la daf ko daf ko toxal suñu ay nopp te saa su ne bu ñuy dox. Mhm. loolu la ñu jël teg suñu kanam. Mhm. mooy ku yokkul ku ne da ngaa wàññi. Mhm. baat boobu képp rek. jar na tey jii àdduna lépp lu waay di def jël baat boobu teg ko sa kanam. ndax dara loo ci bokk lu ne. bu yokkuwul. diggante démb ak tey. jàpp ne wàññi nga ko. nga xam ne kon lépp loo xam ne ni nga koy def ci loolu lay lool ci loolu ci loolu lay tënk muy benn. ba muy. def lu rëy def lu bëri mm-hmm. te néewi kàddu te loolu mm-hmm. maanaam euh, képp koo xamee ne ne kaw sara nga bokk mm-hmm. ne la wër la ne tey ji ana loolu mooy sa ràññeenteef moo xam ne mënuñoo mënu bu ñu doxee woon neneen dana jaaxal ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal kër gi kon loolu mooy doxalin gi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi ciy jéem a roy donte donte donte buñ ko buñ ko mënul tamit ñu koy barkeloo saa su mhm. ndax euh, sëñ bi ci loolu lañu ci loolu lañu loolu la ñu nàmpatal mhm. ci loolu la ñuy digal mhm. te képp koo xam ne ne ne ci ñaa ngi ci kër gi ci maanaam ci loolu nga ñu ci tànk yooyu nga ñu teg ba mënuñu def leneen lu dul loolu leneen lu ci mën lu mu ci mën mënti doon rek dañuy jàpp mbiru mbiru àdduna la comme ñu fi tudd yooyu yëpp rek ndax dafa am loo xam ne moo ñu moo ñuy gën a yitteel te gënal ñu ko mu ab taalibe te loolu la ñuy sa saa su ne di di di ko di ko xëncu kon a euh, laaj am na ma bëgg nga leeral ma ko euh, taalibe Kawsara uh-huh. tey bu déggee ndigal uh-huh. loo xam ne jit na kaw Kawsara uh-huh. nan la koy dundee ndax li tax ma wax ko mooy li tax ma laaj la mooy sëñ bi moom du soññu kenn sëñam di bi ci desit mooy bu ko daa defit xam naa bàyyi na ko Mm-hmm. mooy ni ñuy def dem di laaj kumte wala yooyu. loolu mu amatul daal mel ni ci kër gi. du du du soññu kenn ba pare itam. Mm-hmm. te kenn du jëf lu ndaw ci kanam. dëgg la moom sañoo ko. du soññu kenn. Mm-hmm. du dem di laaj kenn. te kenn du ko jox lu ndaw. ndax ne ki gën di gën lañ koy jox. Ah, yow nag Kawsara nga yaakaar. <laughs> léegi yow taalibu Kawsara bu déggee ndigal lu mu koy jëfee. léegi daanaka euh, maanaam jëfe jooju jàppal ne saa su ne ñu ngi ci. ahadi waaw ndax euh, euh, du benn ñaar yoo xam ne amaana du ñu toog di wax ne def nañu nangam. Mhm. Euh, bu nu bu ñu daan tënku fii sax. Mhm. ba ba nga ne xëy na suñu dem Sénégal dana dana daan na jafe. Mhm. daan naa yawal sama soxna. mu dem ngir jëfe ndigal loolee képp dellu si waat. loolu quoi point boobu loo koy bisimilah. jàll képp nga xam ne bu demee daanaka bu fa amee ñaari fan Dakar bëri na Sénégal bëri na. te dara waru ko lu dul bu demee jàkkaarloo ku baax yi jox ko li nga xam ne moom mooy ndigal li mhm. dellu si waat ba ni may mujjee ne ndax xam nga xam nañu ñun ne xam nañu sañ am di gëj naa génn waaw waaw su ma nee ni mën naa la sama soxna ma ko njëkk mu mujjee gis hmm? ndax maax man bi ma mujjee Sénégal hmm. fekk naa boobu mu ngi ci fatu bi nga xam ne moom la def hmm, te moom ba mu fa mujjee ba mu toog naa jotaay ak moom sama tout tànk mujjee maam jaara uuf ko teg ko ci kaw nataal yaa ngi ngir wal na ne maanaam ndigal fañ fañ ko teg te saa su ne su ma nee la ñu ngi ci ndigal mooy sëñ am di mooy koo xam ne boo ànd woon ci kër gi milliard tey teg ko balaa ngaa dem ndigal bu la fa fekkaatee dooy dem doo koy da nga koy yóbbaale hmm? du gis milliard bi nga yóbbu ba mu tax mu ne naa bàyyi ba suba ñu wax la ko fi ndax ndax euh, euh, euh, fa mu koy def la hmm. te fa mu koy def moom wax dëgg fi yàlla. Mhm. du du loo xam ne dañ naan euh, ñu noppal ci dara. te mhm. te du suñu tawfeex sax maanaam ñu ñuy noppal ci loolu ndax euh, ñoo ko jaayante. Mhm. ndax di yàgg nañ dégg suñu ramante li mu ngi daan wax. ci ci wàllu digal. te tey ji suñu am di daanaka fa la tànkam. kon loolu moom nañ jàpp na suñu tawfeex la ñun. maa xam ne tey jii euh, ndigal li Euh, saa su ne daal jàppal ba ci lii ñuy def nii damay jàpp ne ci biir ndigal biir ndigal li la waaw lépp ci war la damay ñëw après nga tàggatoo ci yenn <laughs> gàtt euh, sëñ Bamba euh, damaa bëgg nga dellusiwaat tuuti rek mm-hmm. yow xam na sa jàmbaar ji Cheikh Mouhamadou Mourtada sunu waa ji nag sëñ Cheikh Fall Ngunda moom mm-hmm. saa su ne day am lu ñu ciy mosal sëñ Mourtada digganteem ak Cheikh Ibra Fall daf ko bëggoon di ko dund ba ñëpp xam loolu sa kër tey sëñ Fallum sëñ Mourtala. sëñ mhm. Moussa Fallay maam. xam naa ñu bari itam ci biir kër Cheikh Ibrahima Fall ñoom ab cëram lañ. kër Cheikh Mouhamadou Mourtada lañ. Mhm. sëñ Cheikh Fall Ngoundé mii ñuy wax di tudd sëñ Mourtala ko yar gannaaw sëñ Abdou borom dër bi sëñ Abdou Sakkoor ko def sëñ Mourtala. diggante sëñ Mourtala sëñ Abdou Sakkoor rek xam nañ ci dara. tey sëñ Mourtala am sëñ Abdou Sakkoor a ngi fi ñëpp xam nañ. ne sax daaru Fall Abdou loolu ngi nañ ko ba nga xam loolu bu kër Cheikh kër Touba kër Cheikh di lenn nga xam gi xam nañ relation yi am net li nga léegi ci cheikh mo seigne mamour rek ci kaddu yooyu mu doon seer ndeysaan ci allemagne lu am solo mhm. ngir wone mhm. melaw maam cheikh mhm. ibrahim fall bañ mu dina li ma wax saa su nekk rek dañuy dellusiwaat ci jàmbar ji nga xam ne jëriñ la fii ci barab bi nga ngay dund ak moom di ànd ak moom ci fu bari te it lépp nga teg sa bët di fekke dëgg dëgg dëgg dëgg ak baye fall ñu dugg dund fii ci france te li ma la wax léegi rek da ngaa gis aw melo ci moom moo tax ndax yow uh, umpale woo dara ndax day laa yee ku sëñ murtala yar sëñ Mamour di sa buntu ci yoon wi. Mhm. umpale dara yoon wi du gan ci yow. Mhm. tey ni ñu koy waxee sax du du daa du doo ci njëmbat daa tooy nga jéppi du ñàkk kàddu yooyu mën a dolliwaat ci moom mi ci pas-pasam. jëmm ji. Mhm. su ma ci su ma ciy wax. li ñu li ñu li ñu boole mooy taalibe. maanaam mënuma ko génn ci ci taalibe. mënuma ko ci génne mm-hmm. euh, bu ñu àndee mm-hmm. wallahi na asim mm-hmm. mësu gisuma ko mu mës def erreur ci diggante euh, jaamu bi muy jàmm boroomam ndax xam naa bu wér waxtu bu ma ko soxlaa sax quatre heures du matin wala cinq heures dafa naan ma xaaral ma jullee fajar ba noppi nga xam ni loolu taxaw na ci diine loolu kenn kenn mënu ko werante waxtu du ko raw ñaareel ba mooy digganteem ak Cheikh Ibra amul fenn foo xam ni tudd na nañu fii ñu ne bërëb nangam cant la wala lu ñuy woote ci situwaat te du ma woo ni ma sëñ Bamba ma ne ko naa mun ma soo bëna laa lay jël si même bu fekkee rëcc na ko sax mhm. maanaam événement am na mu rëcc ko dafa naan lu tax yëgu ko xool ba dafa naan mu man daal vraiment Bamba mett lii metti na ma mhm. so xam naa nag da koy fekk mu tukki mhm. wala mu yëg ko yëg ba nga xam ne digganteem ak fii li ma boole ak moom du lenn lu may sëriñ bi والله بما كفي كنت لو خامني نيهو سوني بروم ولا ولا ولا نيهو سيرين بي تي جيتو غير ما في غيس تبارك كون نك منو ما تي واخ لينن لو خامني خامنو كو لين تودول دينم نيغالم تي سيرينم تي نك لي تي غنا ام سولو موي امول كومبلكس نعم تي باي فالا امغو ba mu ba mu mësuma ko gis nag mu sol leneen loo xam ni du tëri bay far waaw nga xam ni même ñi ànd a sax dafa naan dimbalee ma ba fi noir blanc moom moom mooy sama style ci sa ci sa nga xam ni kon loolu lu am solo la tey ji bi ngay ñëwit mm-hmm. yëre bay far nga seet dafa tënk rek mu ne kii de pas-pas la pas-pas la àndal ah, kon nag loolu laa mën a seetlu ci moom ah, wax dëgg yàlla jërëjëf eh, jërëjëf sëñ Mohamed eh, jërëjëf sëñ Cheikh Bamba mm-hmm. eh, Euh, xam naa rek dañuy egsi ci waxtu wu ñu war a tàggatoo léegi. Mhm. dañu bëggoon rek. Mhm. ci tënk. Mhm. Euh, kàddu yooyu yoo ñuy baaxee ak yooyu baaxee mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp benn. ci euh, ni ñu ko waxee léegi rek kilifa nga fii ci réew mi. jàng nga. ba suñu borom dogal nga ne ci sa liggéey. tey ji am na ñoo xam ne ñu ngi mel ni yow maam jaar fi nga jaar nii. te xamuñu dégg dégg yoon wi mooy lan xamuñu Cheikh Ibra xamuñu sëriñ bi. Mhm. Eh, ndax lu ñu ci bëree bëri sax na ma yàlla jégal tubaab bi sànq na leen. Mhm. du ñàkk nag kàddu yoo ñu mën a baaxee. Mhm. ñu gën a xam dégg dégg ne. lu at lu mën a yëngu rek. sëriñ bi rek fi nekk. ndax loolu nga ko waxee léegi. te yow waxuma la wax ji yemoo ci. waaye bokk na ci sax eh, saa boo jug yaa saa bu ne rek. yaa ngi sa tali. ndax ndax defe nga ne yoon wi lépp sa suur rek. amul dallu amul noppalu tey bu la sëñam di xadi woon léegi rek mën ngaa jël sa laxasaay teg ci ndigg li rek daal di daw dem Touba boo demee nekk ci liggéey ba te fii ma toog sax wóor na ma ne bokk na ci kàddu yi bëgg nga tàggooti mhm. mooy mhm. yéen ndigal rek ngeen xam sëñam di moom teggi teg ca la. du mm-hmm. dalu. Mm-hmm. xam naa ñàkkum ndigal loo toogaale fi ne. <laughs> loo xam ne kaw sa rek ndax bi li bi sikkar sa. Mm-hmm. Euh, koroog reer bi ci guddi gi. la tàmbali signalé ba te xam naa ne koroog sëñ bi jox reer ci reer reeram lañ reer ci guddi gi. bañ <laughs> xëyee ndékki li. man waa Kawsara ma jox ndikki tam de. ndax maa ngi leen fekk ci biir kër sëñ Baara gi fañ doon dënalee. muy ay mbana toogu na ko indi ca. ah. lu ay nag defar na ko. xam naa fi nit ñi ñàkkul mu ngi waat ci ndigal loo xam ne xam naa xam ngeen ko. waaw maanaam li may li may tëjee ci wàllu boobu rek mooy jàmbaar amul. waaw ku ñu dimbalee am. ah di jàpp naa ne ab ndimbal la. te fii ñu nekk nii. ab dafa nekk ab tool boo xam ne. wutelee wu ñu ko waar yi nga xam ne ñu ngi fay nekk ndax. sama maam Cheikh moo tëddee mm-hmm. noonu. maanaam mm-hmm. moo yaatu yaatu boo xam ne nañ mm-hmm. jàpp ne tey jii euh, tool bi. maanaam waar bi fu nekk waras na ko fa mën a bayee. kon buñ ko bu ñu ñëwee fii mu ngi fi mottali waar bi. maanaam nañuy euh, li li li sëñ euh, sëñ Tuubaa Cheikh sëñ Abdou daan wax. mu di saadi fu mu nekk fu nekk. na dëggal ne foofee ak ak ci moom. te war a fa soppi doxalinam. tey ji amaana muy euh, man mu xeebum ñi wala ñu ni mel ñi fi ne mm-hmm. bu ñu waree am lenn loo xam ne ñu ngi koy nattablu ci suñu toogin mm-hmm. te bu sëriñ bi ñëw ñu ñu ñu am luñ ciy soppi mm-hmm. nañu seetaat suñu bopp ndax euh, sëñ Tuubaa say say blaat daan na ko wax ne fépp foo xam ne ne fekk nañ dafa te bu la fa sëriñ bi fekkoon nga soppi sa toogin na xam ne ne bu ñu la ko waxee bu ñu la ko waxul toogoon bi toogin bi rafetul bu fekkee ne nag nañ la mënti fekkee wala mm-hmm. ca la ngay jëf mm-hmm. buñ ko nettalee doo rus mm-hmm. te fekk foo xamee ne tey jii foo toog ku la fa fekk war nga mën faa nekk ak moom kon na la buñ la ko waxee buñ la ko waxu yaa ngi ci toogin ko bu baax kon nag saa su ne rek euh, suyu dañuy fexe ba ndax dañuy dund sëriñ bi du ma ne dañuy jàpp ne sëriñ bi ngi nekk ak ñun ndax sëriñ bi dañ koy dund ku te lo dund lu nekk maanaam du tàqalu ko xew naa xam ne kon saa su ne kon dañuy nekk ci loolee nekk ci ndigal lool te xam ne ne ndigal lu ñu fi bàyyi. ndigal loolu ñu fi bàyyi nag euh, ci moom la ñuy moom la ñuy topp saa su ne. bu te saa su sëriñ bi soxlaayee. Mm-hmm. keneen ku bëgg a ñàkk. kon foofu la ñu foofu la ñu teg suñu tànk. jërëjëf jërëjëf <laughs> eh, eh, jërëjëf. Euh, sëñ Aliou Badara kon xanaa euh, di di sant rek. Euh, mel na ni sax ñu ngi ci cat li fi ne waaye bëggoon nañ sax Cheikh Ahmadou Bamba tëjee ko ak benn euh, turu zikru la mhm. waaye daa mel ne fi ne ñu ngi ci cat li waaye day ñëw ci xam naa ñaareelu jotaay incha allah bu ci yàlla di sant bu baax di sant sëñ Mouhamed Ben Diop. Mhm. Eh, di ñaan nag sama borom li nga bëgg mu teg ko ci sa loxo. amiin loolu ci dikk ci deuxième partie. incha allah jërëjëf bu soobee suñu borom di ziar bu baax Cheikh Amadou mhm. borom di leen jaajëfal bu baax a baax di ziar njaboot gi nag ak soxna yi ñu fekk si ci biir kër gi yëpp di njabootu sëñ Njéeri waa daan sugu bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall danañ ci dikk ci yeneen i jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh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 إله إلا الله شيخ إبراهيم خبر فالجا يوتنا سريفو فال عيدرا نربيا موم كونسرا يرم نويفال سخل نويفال ci baatu laa ilaaha illallah. sëñ sëñ Aliou maa ngi lay jaajëfal euh, di rafetlu euh, jotaay bi ak kàddu yi nga xam ne moom la ñuy euh, seq ci sànq ba tey comme ni nga waxee incha dama. fas bokku ci jongo jongante bi nga xam dina am 2024 mille mm-hmm. présidentiel quatre. Sénégal. Mm-hmm. Euh, fas yéene incha allah rabbi and euh, ceex mbooloo bi nga xam moy uyo pass pass mm-hmm. ngir mën a euh, briguer suffrage yu Sénégal yi ci élection inshallah incha allah rabbi. jamono dafay toll foo xam ne ñi nga xam dañ leen di tudd tuddé intellectuel donté tuuti nañ ci ngir mën ko wax mais tey jamono day tollu fo xam ne bu fa tollu dañ wara jël suñuy responsabilité bokk na ci jël suñu responsabilité fii àdduna toll Sénégal toll fa euh, te waroon mun a weesu lu bëri ci li nga xam ne tey jii amaana ñu ngi daw di topp ci ginnaawam ñu waroon ko weesu bu ñu gisee ne boobu ba léegi ñu ngi nekk ci gannaaw loolu di ci daw euh, ku ci waxul ku nekk da ngaa far te ku ci nopp ku nekk tamit comme ni mu waxee da far far goo xam ne warul euh, bëgg sa réew jàpp nañ jàng nañ ci taarix ne bokk na ci jàmm suñu borom kon tey rawatina ñun ñi nekk ci diaspora bi te te di doon doomu Sénégal xam ne ne ni lu lu ñu naan picc lu mu lu mu kawe kawe xel ma nga ci suuf tey la suñu xel gën a nekk ci Sénégal ñu jàpp ne ne ñun ñi nekk ci diaspora bi dañuy contribuer lu toll ci vingt pour cent ci PIB wu dëkk bi kon ça veut dire que am nañu benn poids poids boobu ñu am warul dem rek ci contribution économique yoo xam ne lii lii tubaab jox wax naan

kon te bu ñu am na fu ñuy toll dañu war a xam ñun njëriñ bi ñu war a amal réew mi te loolu ci njëriñ loolu la ñuy ñëw ngir euh, ngir delloosi ko ngir saxal ko fa àndax ak waa Sénégal ngir mën a tabax loolu. dañuy jàpp ne mbir mi tàmbali bi mu ngi nekk ci réew mi yiy jóge ndax bu ñu amoon lu ñu bëgg ci réew mi amaana du ñu du ñu dem du ñu dem bitim réew di ko jéggaani ndax bu ñu ñëwee dañ jàpp ne lu ñu mën a def fii tamit donte dinañ am lu fi jële loo xam ne dinañ ci mën a suturloo dinañ mën a dimbali suñuy njaboot wante dañuy bokk ci ñi nga xam ne ñu ngi dolli tabax réewu jàmbur bàyyi suñu réew te suñu réew buñ ko deful maanaam euh, dinañuy jagal réewu jàmbur suñu réew du jag ndax lañ fay def amaana xëy na du loolu moo koy jagal te yàlla dañuy waxante suñu waxantee dëgg ci biir ndax am na xam ne buñ fa tolloo ñun Sénégalais dañu war a toog ñu jàkkaarloo waxante waxu dëgg te bañ ko raay bañ ko raay mooy lan Sénégal nañ jàpp ne suñu borom wàccoon ak ñun ci anam yu bëri moo xam ci wàllu agriculture moo xam ci wàllu pêche moo xam ci wàllu élevage li tax ma ne suñu borom wàcc noox ñun dañuy xool tey jii dëkk bi ni mu ni ñu ko bindee bindinu Sénégal mooy tey jii position géographique am foofu lay bëgg andi lu ñu bàyyi ci xalaat position géographique Sénégal tax na tey jii lu jëm ci wàllu agriculture élevage pêche waroon nañ ci mën a autosuffisant ci ay at yu ci ginnaaw te dara warul ko lu dul faw ñu am courage politique boo xam ne mooy tax ñu jëla mën a jël loolu jiital ko ndax li ñu am tey jii ci suuf soo xam ne suuf su nangu la suñu ay maam yàgg euh, yàgg mbay ñu yàgg ñu xam ci wàllu mbay Sénégal waroon na weesu tey fu muy jéggaane lu jëm ci wàllu lekkam ci euh, te alors que mu mun ko bay muy benn ñaareel ba xam nañ ne tey dëkk boo naw ba ci fii ñu nekk ci France ak dëkku àdduna bi buñ ne dëkk bu développé la boo ko nawee yaa ngi ko naw ci ñi nga xam ne tey autosuffisance alimentaire am na fa boo xam ne tey waa dëkk ba xalaatatuñu wàllu lekk na muy tëddee ñu xool tey jii ci wàllu ndox Sénégal buñ ne la mu ngi perte chaque année lu ëpp ci vingt milliards de mètres cubes d'eau yoo xam ne ñu ngi koy perte France bi ñu nekk tey jii jafe-jafe yi ñu am ñu ngi am ci wàllu ndox ndax li mu gëj a taw la ñun ñu dem ba taanaka taw bi lu ñuy sonal la wala ila wa te euh, am na ñoo xam ne sax bëggatuñ ma ci profité ci occasion bi di masawu waa Sénégal ci euh, mënd bi nga xam ne mu ngi fay am mu ngi fay amati lay wax ba am na ñu ci ñàkk seen bakkan di ñaan suñu borom euh, wàcce yërmandeem ci ñoom te taas leen ndax xam nañ ne ku ku dee ci ndox mel na ne ku jihaat ak moom wax ku jihaat moo ñooyam kon ñu ngi am rafet njort ci ñoom ci seen demin gi wante di ñaan yàlla maanaam ci demin di di ñaan yàlla wa yërmandem gën a sax ci ci ci ci ñi ñu bàyyi ginnaaw ak ña fi des. bëri na ci ñu ci yàqule ñoom it ñu leen di masawu wante loolu tey bu mu jël rek jàpp ne fatalité la ndax euh, naam dëgg la ngëm ngëm-ngëm bi ne ci ñun. Euh, mooy waral lu am ñu xam ne ndogalu suñu borom mu ngi ci wante ci kaw gannaaw ndogalu suñu borom yàlla yàlla bay sa tool am na loo xam ne wareefu état ak taxawaayu état la rawatina milliards yi nga xam ne wax nañ ne jël nañ ko def ko ci wàll boobu te ba léegi fu ndox amee tey jii Sénégal am ñoo xam ne ne jax ñu ngi jaaxle te jaaxle bi toll na ci am na ñoo xam ne ndoxu daaw ba léegi mu ngi seen biir kër kon bu ci ren ñëwee gën a bëri doole fekkaat leen fa day nekk loo xam ne lu lu doy waar la. te loolu état moo ci war a mën a jël ci ay matuwaay yu mat yoo xam ne dana tax tey ji ñu mën a weesoo bu ñu demee. dëkk yu mel ni Dubaay ñuy tabax ci biir ndox kon tey jii ndox mu bëri warul nekk lu ñuy jaaxal bu ñu toog di dégg naan euh, euh, euh, phénomène naturel la ak yu ni mel maanaam phénomène naturel mënul weesu ndox moo xam ne suñu borom moo ko yar te di wàcceeku ci kaw suuf wante tamit lu mu ko doon doon doon doon jox nañu jumtukaay ak xel yoo xam ne war na mën a tax ñu xam fan lay jaar ndax Sénégal xam nañ fan mooy yoonu ndox xam nañ fa ndox daan taa xam nañ loolu yëpp kon bu ñu nee ba def fa ay dëkkuwaay war nañ mën a jël mesure yu tax tey jii bu ndox ñëwee doon ne du ne du fa taade ndax ba dëkk yi day taa mais dana nekk loo xam ne du fa toog kon ñu war ci mën a gën a bàyyi xel ci wàllu boobu kon maa ngi leen di masawoo bu baax ñi nga xam ne xëy na am nañ ay lor la ci ci mënd bi di dellu si ci wàll bu xamal ne ne ñun fu ñu teg suñu tànk muy lu ñuy wax modèle économique ci mbay mi la napp sàmm

kon bu boobaa napp napp bi tamit dana gën a mën a dox danañ ci gën a mën a gis suñu bopp ndax bu ñu demee bay di signé ay accord ak ñi waa bitim réew ngir ñu ñëw di nappee mooy wane ne kon am nañu jën bu doy boo xam ne waroon nañ ko mën a jëriñoo wala tey ñooy ñëw di ko di ko jëriñoo ñooñee mu nekk ñoo xam ne doomu réew mi lañ yéene bi ñu am mooy lépp loo xam ne tey ji ressource naturelle Sénégal am ko ci wàllu boobu mu nekk ñun ñoo ci njëkk njëkk Si nous wax une énergie alternative nous dañuy une énergie alternative Nous te buñ ci may au ko naturellement Sénégal bu vous wàllu le taux d'ensoleillement bi Sénégal est ngi 5,8 par mètre carré par jour Il na a pas am nañ le surplus dañ koy te jëlee ko ci suuf si moom la ñuy jël di ko réinjecté waat ci seen circuit euh, électrique te Sénégal tey jii la ñu am li ñuy am ci naaj boo xam ne dafay wàcc rek mat na quinze millions de fois li nga xam ne moom mooy suñu suñu soxla ci wàllu nag kon mooy wane ne kon tey bu ñu yemoon ci ci énergie solaire képp Sénégal waroon na mën a génn ci jafe-jafe yi. tey bu ñu jëlee tey ngelaw bi nga xam ne moom mooy moom mooy traversé réew mi. yi def ay ay ay turbine teg ko ci au large. de de de la mer dañu ñu permettre ñu mëna am euh, énergie éolienne bo xamné tamit Sénégal dana ci mëna jëriñu té du du am du am gañ gañ ci ñun du am jëf jëf kon bari na mm. su ma naan yalla waccu nak ñun loolu yëp daf nek lo xamné lo am kon dafa jot ñu wax nit ñi dëgg dafa jot ñu wax nit ñi li nga xam ne suñu jëriñ wax nit ñi li nga xam ne tey jii moom mooy doxal réew mi naam dëgg la amna or amna pétrole amna gaz yoy yëp amna fa dañ koy santé suñu borom mais dafa am lu jitu li jiitu mooy nit ki balaa nga ko mën a wax ndax boo waxee wàllu or ñu gis richesse ak yu ni mel balaa nga koy wax da fekk mu lekk ba suur naan naan ba màndi comme ni nga koy waxee am dëkkuwaay bu baax bu feebaree mën a faju tey xel mënta nangu àdduna boo ko wëree bëri na tey jii euh, médecin yoo xam ne ñu ngi leen formé ci àdduna bi Sénégal lañ leen formé bi leen fa formé woon fa lañ defee seen spécialisation tey ku def médecine tropicale te jaaroo Sénégal néew na ci médecin ci adduna bi ku def médecine tropical par exemple te jaaroo fa nga dem ci pays Afrique du Nord médecin yi fa gën a xarañ Sénégal lañ leen formé kon lan moo waral tey nit war a mën a feebar Sénégal ñu jël ko di ko évacuer foofu mu dem faju te yow ka lay faj Sénégal la jànge kon ça veut dire ne kon am na loo xam ne moo di des muy li xam ne moo jëm ci wàllu jumtukaay ak plateau plateau médical boo xam ne dañ ko war a relever mm. loolu war nañ ci mën a gunge nit ñi taxawu ci ba nga xam ne tey jii képp koo xam ne tawat nga Sénégal di war a mën a faju balaa ñuy xalaat ba xam am nga luñ la fajee wala déet loolu état la war jàng état la war te jàng boobu bëgg naa fa taxaw tuuti ndax li tax ma ne dama fay taxaw tuuti dafa am loo xam ne suñu mbaax la ñu xamee ko Sénégal ngay gis walla nu ñu koy gisee ci pays Afrique rawatina Sénégal xale bu am juróom-ñaari at juróom-ñaari at bu fukki at wàccee kaamil di ci def lu doy war te tay ji mosuñu tok def taxaw setlu lan mo tax tay ji xale bi def lool bes buñ ko waree jël yobbu ko école française mu wara reprendre tout le tout le circuit scolaire uniquement pour mën a euh, euh, maîtriser ben langue hmm. tay ku ci nek tay tey sa ñaari mbadara xam-xam bi nga xam yalla may na lako nga nga nga ci nga ci def li ngay def dëkk buñ la mënti yóbbu boo làkk boo dëggul làkk dëkk boobu ñetti wër buñ la fa bàyyee nga làkk ko te du tere liggéey bi ngay def na nga koy def te jii sëñ Mamour la waxtaan bi ngeen wax ci sama maam Cheikh Ibra dëkk buñ la mënta yóbbu boo fa jàngee ñetti weer boo ko fa defee dëgg làkku dëkk boobu def waxtaan bi ci làkk boobu est-ce que jar na ñu yóbbu la nga dem jàngiwaat école primaire ba ba ni ngay yeggee fële foofu ñu jox daara gëddëm Sénégal jox daara gëddëm toll na ci ñu jël tey jii système éducatif daara dugal sa daara duggal ko dans le système national sëriñu daara yi doon ay enseignants am am les mêmes droits et privilèges yi nga xam ne moom la les enseignants am élèves yi nga xam ne nongo ndongo daara yi ñu ñu ñuy considéré ji un élève boo xam ne mu ngi dans le circuit scolaire ñu mën ko considéré tey nongo daara bi Sénégal ngay gis tey ji ko mun a jël doomam yóbbu ko jardin d'enfants di fay vingt cinq mille boo ko jëlee yóbbu ko daara war a fay junni sëriñu daara bi yéene ko junni boobu ba pare nga bëgg tey ji sa doom ji nekk ci daara ji am même tolluwaay wala même jeexital ko xale yi nga xam ne moom moo génne fële ñu ngi nax suñu bopp loolu nag la pas-pas dellu si ne daf koy daf koy taxawal nga jàkkaarloo Sénégal yi xam ne ne lii suñu dañ koy jëlaat ba mu li nga xam ne mooy taxawaayu daara dañ koy jël duggalaat ko ci circuit bi xam ne ne am nañu suñu moomeel ndax dëkk mënoo ko tabax te tabaxoo ci li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy nonaw réew ma ak nga xam ne moom la suñu maam yi xamoon te tey jii képp koo xam ne tey suñu maam ba fi mu toll ci loolu la ñu mës jàngal ci loolu la ñu mës a teg seen tànk te incha allah rabbi loolu lañ bëgg a dellu si waat te ànd ceex képp koo xam ne tey jii Sénégal ñor na ak lii doxal réew mi ñor na dañuy delloo seen xel lan moo tax ñu tuddee leen honorable maanaam euh, du dañu nekk ñoo xam ne ci 17 millions de sénégalais yi fi am ñoom 165 yooyu la ñu honoré pour ku ñu dem représenté ñu doon baatu askan bi kon ñoom bu ñu fa demee. waratuñu gis parti bu ñu bokk fu mu nekk nii damay am jaaxle su ma toogee dégg ñu naan kii moo am ëpp kii moo am majorité ak nangam nangam naam am na solo ndax xëy na ci euh, clivage politique la mais li ci am solo ba solo mooy nañuy jàpp ne tey jii ndam bu amee réewu Sénégal am ndam ndam bu amee yi ñoo am ndam kon ñoo ñi nga xam ne dañ leen tànn ci 17 millions ñu dem représenté ñu ngal la buñ fa demee dañu représenté peuple sénégalais. nañu seet li nga xam ne mooy jooyu askan bi ni nañu xool li nga xam ne moom mooy bëgg-bëggu askan bi te ndax looloo tax ñu yóbbu leen fa naam dëgg la du ñoom ñooy doxal wante bëri na ci tey jii loo xam ne buñ ko foowaatee ëllëg mu mën ñu ko appliquer ba la ñuy wax ni tey ñu ñoom bu ñu toogee wax légiférer fa loo xam ne tey jii ñun ànduñu ci dañuy obligé def ko ndax ñun ñoo leen fa teg ngir ñu mën a def loolu kon képp ki nga xam ne la ngay la ngay la ngay voté day am impact ci sénégalais bi nga xam ne mu ngi doog a judd tey sax kon war nga seetaan li ngay vote lu mu doon te gis gisal njëriñu askan bi muy ëpp doole ëpp jëriñ gis li nga xam ne moom mooy njëriñu parti bi nga xam ne moom nga bokk wala coalition bi nga xam ne moom nga bokk te ci di ci leeral ci côté boobu jiital njëriñu askan mi toll nañ ci foo xam ne man mbooloo bi ma àndal bañ ci àndee ci benn coalition dem ba ci biir gis nañ ne ñooñu am na amaana ka ko jiite boppam la gën a jiital wala ay intérêt la gën a jiital wala ñi xam ne ñoom lañ fii ñoom ñoo nekk ci réew mi euh, muy le parti au pouvoir hésité wuñu pour retirer wu te loolu nekk na loo xam ne lu jafe la ñu ñuy gis ci ci réew mi mm. te bañ ko defee taxul ci dem fekki pouvoir ndax loolu soxaluñu donc loolu li may leen di soññaat ñoom it di leen ko di leen ko dénk mooy nañu fàttali bu ñu fàttali ne askan bee leen fa teg dërëm bu mu munti jot tamit ci askan bi moo leen ko jox kon nañu delloo njukkal askan bi te nekkal foofu askan bi. incha allahu rabbi ñu xam ne ne pas-pas mu ngi dama ne du ma ne mu ngi ñëw ndax mu ngi sur terrain bi. di jaajëfal nag képp koo xam ne yaa ngi ci biir parti bi di ci liggéey ak fépp foo mun munti nekk ci Sénégal ak ci diaspora bi te gëm ko te dox ci te yàlla rek tax ndax euh, dafa am loo xam ne dañ ko bokk. wax dëgg fa la di leen jaajëfal di di mention spéciale euh, Cheikh Amala Chimère mi nga xam ne moom mooy suñu coordinateur international nga xam ne moom anam ñëpp la jàpp li tax mu koy tudd nag ñëpp xam ñu taxawaayam ci parti bi di ko jaajëfal c'est location vraiment ñu rendraat ko hommage fii euh, ci taxawaay bi nga xam ne am na ko te noonu la ci pas-pas yëpp am ndax par bi ñu koy tëjee rek mooy ku dox ñu dox ku doxul ñu dox ku dem ñu dem ku dem ñu dem pass pass mu ngi ñew jakkalo senegal 2024 inshallah rabbi ñe jebalon yalla ak yonen ba seeni bakan ak seeni jur raw ñu ñak ak lu de si ñe jebalon yalla ak yonen ba seeni bakan ak seeni jur raw ñu ñak ak lu de si ño def lu wérul lu rafet ño am lu wér lu rafet ñoo nangu nangug nawet ñoo war saxaari ndigal njëbal gu wér rekk wér moo am njariñ ku ko def raw lépp loo bañ te jot loo bëgg jag te jagal ñi léegi bafungu ñi léegi waaxu ñi wari fas murit ya dugg gaalu cant benn fëxal ñi léegi rootaani ñee ngi jaj ñee